la la la la La jurangi Dinyo Rasul mukawa Rasul mukawa Ada tuh lo? Ada Ada Ada Ada ada? muy xéewal gi nga xam ni borom asamaan ak suuf moo ko xéewalal muy xéewalug ndox ndax mooy wala mën nga wax ni bokk na ci xéewal yi gën a màgg ndax dund doomu aadama ci la aju ak leneen lu dul sax doomu aadama suñu borom day wax ne wa jaal naa minal maa'i kulla shay'in hayy nee na moom moo def ndox mu nekk sababu dund lépp lu mu mën a doon lii nag ab jigéen moo ko financé wala benn jigéen joo xam ni ku daan jàppalante ñun di liggéey ak ñun di financé ay teen ab rakkam moo ko financé moo leen may teen bii nii yàlla yàlla nangul ko jëf ji. e wax dëgg fa yàlla kontaan nañ kontaan boo xam ne amuñ seen payil yàlla rek moo am seen pay yàlla nañ buur bi samal samal samal ma leen ndax coone bi ñu nekkee woon ci manquement am ndox ngeen ñëw alal bu toll nii ngeen ñëw finance ko fii lan moo ñu war ñu leen gërëm di leen sant bu baax a baax ndax lii ñun waa dëkk bi ñun waa Poudaye bu ñu cotisé woon ku nekk 15000 15000 sax mënuñoo tax ñu am teen bu mel ni wax dëgg fa yàlla kon nag lii lu ñu war a def mooy ku saa bu julee muy guddi juróomi waxtu yi rek dañ leen di war a ñaanal surtout ndaw soo xam ne moo financé alal bu toll nii ngir ñu koy ñaanal ñun waa Poudaye chaque jour guddeeg bëccëg ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ab xéwal bu rëy a rëy waaw yàlla yàlla buur bi ñu samal ma leen arikal alhamdulilah ndox moom wax dëgg fa yàlla neex na neex na bëri na neex na bëri na wax dëgg fa yàlla sant yàlla bu baax a baax ñu ngi sant yàlla julliti yonante bi salallaahu alayhi wa sallam di gërëm madam bi nga xamante ne mooy suñu moroom du suñu moom ci moom la ñuy roy presque fu mu nekk nii mi nga xam ne moo financé teen bi macha allah teen bi bari na ndox ndox mi neex na ñun daal ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg yàlla na ko fa yàlla yebbu yóbbu yàlla moo xam lu baax ci moom yàlla na ko fa yàlla yàlla defal mu amuñu gërëmam vraiment ndax lii neex na lii neex na lii kenn mënu kaa defal boppam lii moom kese moo ko mën a defar mais def na ko macha allah nous sommes euh, dans la région de Fatigue dans le village de Poudaï, pour l'inauguration d'un puits qui a été financé par une, euh, dame dont la famille a eu à financer beaucoup d'autres projets de Sakuyo. Et euh, le projet qu'ils ont financé ici facilite la vie des populations. Euh, à travers euh, les, témoignages, vous pouvez euh, constater la satisfaction, des villageois. Et Inch'Allah, avec les doigts qu'ils ont adressés, Inch'Allah, nous espérons qu'Allah soit notre il mette la baraka dans votre, dans votre famille et vos biens. Et en espérant bientôt avoir à collaborer pour d'autres projets. Barakallahu fikum, salam wa Gracias.